incha allah tabaarakallah léegi dañuy eh, dañuy daal di eh, bàyyi ki nga xamante ni nii moom mooy Babacar Kébé ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy ponk rinkum bi eh, ndax tey saa nee na war na waaw wan waaw. <laughs> waaw wan naaj. moo xam ne mbuubeen bi fu mu jógee. il faut mu may ko comme ça mu teel a pare dem jàkkaarloog plat yi mën a lekk bu baax a baax donc Ameth ni nga ko waxee benn ponk la ñu fas yéene waxtaane mooy suñu naataango yu l'Observateur yéenekaay ci la ñu xëy tey seen xëtam bu njëkk daal ciy dellu si waat ak li nga xamante ni daanaka moo di jamono bi ak fi ñu nekk nii parce que dañuy faral di nemmeeku ne Sénégal yi daal mënees na ko tënk ci ñaar wala ba ñett mu di lu jëm ci wàllu loi yi nga xamante nii war nañ man léeg-léeg di ko sàmm ba li nga xam ne dinañ dox suñu diggante ak yenn institution yi ñu jox ko cër bu mag a mag bokk ci également li nga xam ne tam moo di yenn kilifa yi nga xamante nii dañ leen war di jox yenn worma yi nga xamante dina tax yenn yi buñ koy sàkk mu nekk loo xam ne luy rafet du doon waaye bokk ci yeneen lii yi nga xam ne dañ ko daan duppee ay lii yoo xam ne sacré la nit ñi war ko respecté ba yenn yi sax maanaam da doon nekk loo xam ne maanaam umpu lay doon ci nit ñi ku fa demul rek te nekkul ci sa sago doo mën a xam sax lan moo nekk ak lan la ëmb mais léegi yooyu de yëpp presque fu mu toll nii dafa mel ni dara daal maanaam nekkatu ci lépp lépp presque dañoo commencé gis ni daal xam nañ dafa xew xam nañ ni mu mel ak lépp li nga xamante ni moo fa jëm ci wàllum nekkin donc bu ñu xoolee tey mu mel ni biir kaso yi la ak feneen ak yëpp presque moom la ñuy gis ne fu mu toll nii même boo fa demoon sax mën ngaa xam véritablement lan moo xew sax ci biir kaso yi parce que image yi ngay gis ni ci biir kaso la xewee fa lañ ko filmé génnee ko mais mu daan nekk lii boo xamante ni daanaka nit ñi dinañ faral mais du ñu nii rek gis nañ yenn ci image yi mu ngi wane ne am na ñoo xamante ni daanaka ñu ngi ko doon di ko wane mu di ay yoo xamante ni bari na loolu laa tuutee alors tey ak fi jamono toll réseaux sociaux yi bien sûr nu mu mel mais lan moo soppeeku ci doxalin ak jëfin nit ñi ba tax la doon di am ci yenn bërëb muy faral di am mais tamit ban taxawaay lañu war a mën a àbb tey jii ngir rek maanaam jéem a corriger li nga xamante ni moo di situation boobu mais beneen bi ci gën am solo tey mooy ani war ma bi nga xamante ni dinañ ko daan war a mën a am wala benn respect bi envers certaines institutions wala loi ñu war ko mën a sàmm de sorte que dérive yi dina nekk loo xam ne du dañ ba abadan lay doon. jërëjëf Babacar euh, damay euh, jox euh, soxna Mati laataa muy ñëw ci professeur soxla Mati. noo jàngatee l'observateur li mu xëy def analyse ci ëttu yéene kaayam. di wax ci sutura gi ñuy ëññ ci yenn place yoo xamante ne ni mit la woon. kon li ko Babacar Kébé waxee ak li ko Obs defee étude bi xam ñu koy bëgg expliquer sax. Hmm. mais lii soo xoolee il y vingt ans am fi woon lu tax am fi woon parce que. mooy yi ñu utiliser pour génne yi am fi woon aussi même su amoon tamit. mais bi est-ce que njortuñu ne sax koor gi moo tax bii nii. est-ce que lii image yi njortoo leen ne sax koor gi moo ko waral. ak évolution technologique. évolution te loolu laa lay wax il y a vingt ans lii amul woon mun doo xam la moo xewoon ci monde bi wala dara parce que technologie bi avancé wul woon nii léegi c'est parce que technologie moo avancé ba nga xam ne lépp li nga xam ne umpoon na la il y a léegi lépp lépp la ñuy wane. imaginer tey jii tey lu xewu États-Unis moins de cinq minutes ñun ñëpp ñu jotandoo si ak ñoom c'est parce que technologie moo mel fii tamit bërëb yi ñuy wax ñaata yoon la ñu dégg ci ay ay ay administration pénitentiaire ñuy wax ne dañoo jël ay téléphones yu ñu nangu walla dara parce que léegi euh, détenus yi dañuy am droit yor téléphone dañuy wootante ci biteek yooyu yëpp ñaata yoon la euh, mutinerie am soit ay rëbës walla dara ñoom ñooy woo presse bi jox leen ay image ak yooyu kon lii du du gule tey du c'est pas la première fois ñi wane image yoo xam ne ci biir prison la génne walla dara léegi nag lan mooy coow li est-ce que lii c'est normal wala c'est pas normal am na loi yoo xam ne daf leen war a daan wala dara loolu mooy problème bi gis nañ fii am na benn commission données personnelles boo xam ne mais boobu il fii que yow nga def soit sa plainte moom mu mun ko recueillir ñëw euh, condamné nit ki wala dara mais yi bu xam fan la fan la génne peut-être dinañ xam après kan moo ko génne parce que nit bu ko filmer xam nga mu ngi wax ak yooyu suñ defee ay recherche wala dara dinañ xam fan la génne mais plainte su amul dara su amul xam nga ba pare yi dafa gaaw a tasaaroo kon nu mu nu mu euh, connexion fu mu am rek mooy loolu euh, tasaaroo bi moom mooy moom mooy indi aggravation cas yooyu ba ñëpp di si wax ku nekk di joxe say explication wala dara mais ma je je me ne àdduna bi fu mu fu mu toll moo tax lii yëpp di wa di am léegi nag est-ce que Sénégal am na ay loi yoo xam ne dina daan genre yi nii dérive yii nii bon. gisaguma loi boo xam ne c'est sévère boo xam ne typiquement pour ça aussi. exactement amu ko CDP c'est vrai que données personnelles dañuy tere kuy mais soo deful plainte wala dara affaire yi du amati fenn parce que yàgg nañ gis jaaw image yi ñu génn ay image yoo xam ne c'est intime wala dara yuy génn ñëpp di ko tasaare ñëpp di si jot mais du mujjee fenn day jékki-jékki day coow li fay ah. mm. dara amul benn suivi amul dara mooy bon mm. d'accord peut-être que <laughs> ci jamono dina saajawaat. <laughs> Mouhamadou Lamine Ba jamono dina saajawaat. noo noo gisee est-ce que duñ dem sax ba affaire gën a yokk gën a gën a gën a mën di fës. parce que Ameth euh, lii nii mooy li mu wax rek tout à l'heure la première fois ñu koy gis ci biti peut-être dafa ñëw ci moment boo xam ne nii euh, dafa tombeek aussi tam ñu jàpp kenn koo xam ne coow li bëri woon na ci moom. mu di Cheikh Oumar moo tax nit ñi commencé di ci gën a bàyyiwaat xel mais depuis des années lii man maa ngi koy gis man personnellement quand j'étais à rajo dama doon jot ay appels yoo xam ne ci kaso bi laa ko doon jotee tout le temps émission yi ñu doon def surtout la nuit dañ doon jot ay appels yoo xam ne auditeurs yi ñu doon woo ci kaso bi lañ doon nekk su ma paree émission le matin aussi tamit amoon naa benn auditeur boo xam dafa ma doon woo ay pendant une heure de temps yoo xam daf may woo damay expliquer carrément ce qui mm-hmm. biir di may wax naka la fa demee lan la fay dund ba demoon na ba ñun sax man mi nga xam ne maa nekkoon ci biir amatuma woon euh, maanaam kumpa bi amatul woon ci biir quoi. Mm. bi nga xam ne moo amoon ci kaso yi te aussi tamit dafa doon baax sax muy ump nit ñi la fay xew. maanaam ci gis-gis mais mun nañ xam lu fay xew mais ci gis-gis tamit war na waroon na mën a am benn mute boo xam ne ni aussi tamit parfois. doon nañu ko mën a privé mais lii nii moom Ameth wax dëgg yàlla yàgg na ci Sénégal depuis des années ñi ngi jot ay vidéo yoo xam ne ci kaso bi ñoom ñu ngi ci internet bi comme ñëpp ñu ngi ñu seen ay téléphone ay n'importe quelle heure te dafa am temps boo xam ne yaakaar naa ne moom lañ leen may bu ñu war a mën a woote mm-hmm. mais léegi nekkatul loolu parce que man amoon naa sama benn jeune bu dëkkoon Colobane rek mais léegi bu dee dañuy connecté wu wax ak yow a woote man dama doon tiir sax boobu maa yoroon salle de je me rappelle daf may woo allo crédit laa bëgg crédit laa bëgg balaa chef bi di ñëw. dañuy toog suñu prison ma di def transfert d'argent. di def kii mais vraiment daal doy na waar te tamit lii dafa mooy li nga xam ne mooy xew ci kër yi. kër yi tamit lu xew ci néeg bi nii nii nii boo génnee gis ko ci mbedd mi. dañu dem ba jamono boo xam ne dara nëbbootul dara umpeetul quoi amee. Mm-hmm. d'accord merci merci beaucoup ma ma laaj professeur professeur euh, ci ci ci wax ji ñenn ñi jàpp nañ ne technologie bi moo ko waral euh, ñenn ñi jàpp ne. Euh, voilà yàgg na fi euh, bu tey dafa fës rek mais yàgg na fi mais est-ce que du yàkkamtee nettali bi nga xam ne moo dal suñu société bi léegi lu xew rek ñu gaaw ni ko faa dàgg ci réseaux sociaux yi wala ñàkk sutura ban la ci. Euh, ñaari image yi ma gis ni boo xoolee dafay mel ni du du lu yees du lu yees yu mel nii yàgg nañ ko gis moo xam ci barab yoo xam ne si miinuñu ko woon a def moo xam ci yeneen barab aussi. Euh, waaye jàpp naa ni ñaari élément am na ci solo ci li waral lu mel ni am benn bi mooy jumtukaayu xarala yi nga xam ne léegi yaatu na nekkatuñ ci jamono yi maam nañ doon dundee ay distance am léegi dafa mel ni waxuma sax village planétaire waaye ñu ñëpp ci benn néeg lañ nekk euh, li ko firndeel lii ba ñu koy def ñun fekke wuñ ko mais mi ngi mel ni fi fekk nañ ko fi nekk nii donc ndax jumtukaay yooyu loolu yaakaar naa ni dana expliquer leen la beneen bi ci des di ko expliquer it mooy incivisme bi nga xam ni caractérisé seetlu nañ ko ci réew mi. incivisme boobu nag euh, ci fànn boo kon natt rek da ko gis foo ko xool it danga ko gis actuellement dañuy wax respect des institutions respect des lois mais est-ce que ñuy incarner institutions yi sax ñoom respecté nañ institutions yi est-ce que respecté nañ lois yi. problème la xam nga damay wax souvent ni am na message yoo xam ne nit ñi ñoo ngi koy délivrer te duñ ci bàyyi xel ñoo ngi koy délivrer te duñ ci bàyyi xel xam nga bu fekkente ni par exemple nit dafa doon kilifa ci réew am cër boo xam ne daf ko am nit def lu dul yoon moom mu dalal ko recevoir ko loolu ban message la joxe ci loo xam ne yoon daf ko condamné muy loo xam ne c'est euh, euh, dañ ko war a réprouver mm-hmm. dañ ko war a condamné yow nga dalal ko ci la plus haute institution en fait de ce pays là loolu lan lañ ci mën a jàngate. ban la ci par exemple exemple le président de la république bi mu dalalee en fait le gars bi jëloon déyti jaamur yi daw ak moom. Mm-hmm. mu dalal ko recevoir ko. Mm-hmm. mais c'est extraordinaire message bi président délivré foofu. moom mooy ki incarne la première institution de ce pays là. Mm-hmm. nit def njombe lu toll noonu nga koy dalal. di wax ak moom ci barab bi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk muy symboliser li muy symboliser c'est extrêmement grave ci message bu mel noonu beneen bi ci des <coughs> lu yàggul dara assemblée nationale nga xam ni ñoom ñoo war a tëral ay loi ñoo koy nos fii problème loi yi ñuy wax ne ñoom ñooy tëgg loi yi ñu indi leen proposition de loi règlement intérieur bi leen tënk ñoom ñu violé ko maanaam wane ne maa tey ni ñun dara tënkuñu mais finalement lan la askan wi di jàpp aussi sa à dire yëf yi buñ ñu duut baaraam askan wi rek déedéet gis nga mbir mi lu gën a profond gën na xóot loolu te tout le monde est coupable tout le monde est responsable tout le monde gis nga boo delloo ci biir kër yi lu mel noonu nga fay fekk loo xam ni kenn mësu koo waxtaane ci ëttu kër laa wax léegi mu ngi ci pénc mi mi ngi ci mbedd mi lu kenn mësul waxtaane ci ëtt laa wax de maanaam nga génn sa biir néeg keneen néeg néegi jàkkaarloo nga taxaw ci buntu kër gi ñu waxtaane ko léegi ci penc bi lañ ko andi gis nga loolu nag man jàpp naa ni lenn rek lay posé ay problème yi loi ki institution yi yëpp say boo ñu teg ko fële xam ni Sénégal problème mu nit la ñu am problème mu jikko jikko yi ci boppam mooy yàqu moo nasax te foo yaakaar ni yàqu fa foofu la gën a yàqoo fi mu nekk nii sénégalais yi ñëpp maase nañu dema dema dem ba dafa mel ni li ëpp solo te ñu koy mandargaale nit war ko mën a jox cël fi nekk nii ay gadget la mm-hmm. ay gadget dañu gadgetiser la société mm-hmm. ci société de consommation lañ nekk loolu d'accord nañ ci waaye dañ ko gadgetiser fi mu nekk nii maanaam cër bi ma lay jox wala bi may jox Babacar Kébé mii mm-hmm. cër boobu mu ngi aju ci oto bi mu gaare mu ngi aju ci lan la am immeuble yi lan la am ci nangam ak nangam nangam c'est extraordinaire cest à li nga xam ne nit ñi ñoo daan def ay effort pour man koo am léegi loolu mooy déterminer fi mu ne nit ba nga xam ni tey jikko yu rafet bu nit mënoon am ragal yàlla gum mënoon am cër bu mu mën a jox nit ñi ajatu ko ci lu nit ki mel ak njariñ lu mën a jariñ askanam mais mi ngi ko àcc ci kii lan la am peu importe nan la ko mën a amee te lii ma lay yox foo mën a dem da ko fa gis da ko fa fekk. bi nga gisee Cheikh Omar Diagne la def professeur xoolal xoolal tey jii man damaa déparé fii tey wala nga gis gone goo xam ni dafay jóg départ ni damay dem. nemmiku ci man daal xam naa ni bëgg naa lu baax ba damay seeti fu baax fa daan faral di nekk ma dem wuti fa peut-être 5000 francs la am ndeysaan xëy jël ci horaire yi fay 1500 dem toog ci buntu kër googu muy yaakaare lu baax nit nelaw ba midi taal otoom climatisé jaar ci kii bi ñëw taxaw moom dana ko fekk ca mbaar mu toog ngelaw la di ko xaw a rey mu jéggi ko jàll dem gisee kilifa gi génnaat. moom mi nga xam ni si amul benn moyen amaana bi mu wàccee sax amul lu mu paas dafa dox a dox ba àgg foofu moom bu àgsee foofu koy teg amaana mën naa a àgg sax ci kilifa gi a jóg yàllaa ko taxoon nga xam ni kon àgg gi àgg ci kilifa gi waxuma ni kilifa ga daf ci am responsabilité de waaye ña nekk ci buntam moom am nañ ci responsabilité nga ne li tax yëggaliwuñ ko ci kilifa gi mooy peut-être amul lu mën a teg ci seen loxo wala kon société boo xam ni toll na foofu hmm. nit ñi ñëpp fi mu ne luñ mën a am dong leen jiital ci lu mën a doon mais kon ana ñun message bi nga xam ne moom lañ jox askan wi c'est-à-dire nit ñi gis nga bu ñu lërante fi mu ne yii ñuy wax yëpp ko lijjanti tey du ko lijjanti ëllëg dafa am benn borom xam-xam dafa waxoon solo dafa wax ni on ne réforme pas l'âme des hommes par mm-hmm. des hommes par décret gis nga yii ñuy wax ni du ko lijjanti tey du ko lijjanti parce que nous sommes tous coupables nous sommes tous responsables ñun ñëpp ci am responsabilité ci li am. bi nga gisee Cheikh Madiagne ñu doon professeur. bon xanaa di ko. sentiment boo xam ne xañ na mënuma ko exprimer euh, di ko ñaanal yàlla borom bi génne ko ci fii ndax alxuraan dafay wax ne ahasiba naasu an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun ndax nit ñi dañ naan gëm naa rek ma ne waaw nee na dama leen di éprouver dama leen di éprouver te yàllaa wax faw mu éprouver nit ki bi nga nee gëm naa dara faw borom bi éprouver la ci loolu kon bokk na ci sunnatullahi nañ xam ne loolu ci sunnatullahi la bokk yàlla moo ni ku ni danaa gëm naa rek faaw mu éprouvé la moo xam fa mu jaar ba éprouvé la aussi te moom xam naa ni Cheikh Omar umpalewul loolu loolu benn élément la beneen élément bi des maanaam nit ci boppam sax li tax ñu sàkk ko melal ko nature bi mu mel sax c'est pour éprouver ko la inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi nabtalihi maa bind doomu aadama ci nature bi mu ko bind juste pour l'éprouver kon nit mënta ñàkk a jaar ci épreuve te li ci sew-sew bi ci nekk mooy du nit ki mooy tànn ban épreuve moo may accès yàlla moo koy def ci volonté boppam coobareem ak sañ-sañam teg jaamam loolu te moo xam naa ni c'est quelqu'un qui est fort yàgg nañ échanger yàgg nañ waxtaan ci lu mel noonu mu ni ma <coughs> gis nga combat bi ñu nekk nii dafa transcender suñuy jëmm dafa ëpp suñuy jëmm aussi te li ñu ji gën a mën a fekk li ci gën a tuuti moo ñu yóbbu ñu kaso wala ñu rey ñu kon moom di yàgg na mais absolument cest à nit ñi ñooy wax nii rek mais moo man Cheikh Omar ma xam. Hmm. lii ébranlé wu ko sax. ku ko sóoroon la maanaam tey jii bu fekkoonte ni li ma jàpp man te xam ni moom la jàpp aussi mooy ñu dem ci kaso ak ñu gas ñu ci suul lan maa sa yemale. parce que combat la boo xam si dafa transcender suñuy suñu personne. dem nañ ba dégg sax ne préparé na ci sax njabootam. mais absolument li ma la wax ni mooy mooy euh, man ku ko xam la waxtaan nañ ci ba tey alors ñaata yonent te ñoo ñi gën ci mbindeef yi la yàlla yónni ñu seen bakkan des ci lim leen yónni woon bari na ñaati nit yi yàlla kazalik alors kon am na loo xam ni ku ciy nekkit bu fekkente ni préparé woo situation yu mel nii mu agsi ci kaw it c'est parce que li nga doon def wala la nga sóobu woon xamoo ko li gën a tuuti loo ci fekk mooy kaso baadee de bon xaw nañ génn sujet bi tuuti parce que Mouhamed question bi mu dugal dafa am solo euh, image yi lañ doon jàng mais foofu mu dugalaale parce que dafa xaw a toftaloo nan nga jàppee eh, ñu bari ci société bi jàngat bi ñu def par rapport ak jàpp bi ñu ko jàpp mooy ne eh, dafa wéet moom donc bokkul ci famille religieuse bu mag comme ni ñu koy waxee fii les intouchables entre guillemets su ma sañee ni waxee wala di mu jénn ànd sàmm jikko yi moo tax tey ji ñu dem ba sañ ko def lii ci gàttal dafa wéet ci xeex bi loolu noo ko jàngatee yow. bon peut-être euh, y a deux yoo xam ne c'est à préciser benn bi mooy Cheikh Omar ci tarixa la bokk. ci waa kër euh, Cheikh al Islam la bokk donc Medina bàyyi la bokk en tout cas man ci lim ma wax li ma gis aussi mu koy doxal donc kon firiwul ni bokkul ci tarix nit ñi nag ci amalgam la ñuy dënd wax lu leen wóorul ak euh, extrapolé que lu ne ñu dugg ci di wax waaye ci tarixa la bokk kon yaakaar naa ne argument élément boobu moom il faut ñu écarter ko euh, beneen élément bi ci des yi tamit mooy je ne pense pas que ni xëy na euh, génn gi mu génn ci ànd sàmm jikko koy c'est vrai que ni peut-être am na xëy na ñu ko mën a jàngate neen ni waaye li wérte war daal mooy euh, xëy na fii laa ci mën a yem sa à dire ci xuus lu bari waaye ce qui est sûr et certain mooy euh, lu mënul woon ñàkk ci dundam la arrivé na ko ñun ñii tamit xamuñu suba ak ginnaaw suba lan mooy dal suñu kaw hmm. xamuñu ko te lu mën a doon aussi doon na loo xam ne nangu nañ ko ba pare damay wax très souvent ni man sama kàddu gi may wax nii fii may waxee ak yéen ñu jële ma fii dem robi ak ma ñibbi sama kër laa yemale musuma fàttaliku bari na ñoo xam ne sax danañ ma ci wax lu bari dañuy def ay repos mais musuma fàttaliku fu ma ñaanee gudd fan musuma ko fàttaliku non cest à dafa nekkul ci sama sama sama dëppawul ak sama sama sama gis-gis rek xam nga gudd fan gu ak gudd bakkan dafa bokkul nit ñi dund gu bari la ñuy la ñaan am at yu bari man dama gis ni mbir yi nekkul ci loolu euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa am ku ma a ñëw naan ko sëñ bi yàlla nga dund junni at mu ni ko sa ñaanuk dof gi mooy gan ku nekk na def la mu war a def te jóg fi ku nekk na def la mu war a def te jóg fi sa à dire def li nga war a def loolu mooy clé bi. yoon ci Yàlla instant ñoo ñu koy présenté comme étant koo xam ne si 33 ans la nekk ci kaw suuf. Yahya aussi la même chose on le présente comme opérant koo xam si 33 ans la def ci kaw suuf et pourtant ba tey jii ñoom mi ngi mel ni ñoo ngi dund seen seen jeexit fi des hmm. am nañu fi dund fi mu nekk nii plus de 100 ans kenn xamatu leen bi 23 ans la hmm. hmm. te terewul tey jii mi ngi daj àdduna ñëpp mu dem ci xol yi wala bokk ñu waree bari ci nit ñi mu dem ci seen i xol donc c'est-à-dire du dund gi toog di xëy ak yeewu nii nekkoo ci li nga war a nekk moo am solo déedéet ñun li ñu ñaan yàlla mooy li taxoon mu sàkk ñu ci coobareem yàlla ñu dimbali ba xamal ñu ko ba noppi xiirtal ñu ci dimbali ñu ci aussi parce que ñun amuñu ci possibilité mënuñu ci dara ba ñu nekk ca ba dogalam buy ak si dogalam boobu nu mu dikkee rek loolu neex nañ ba pare ñun ci foofu lañ nekk. mais su yàlla maanaam ngay xaar pour mu dara mënta gën dogalu yàlla. Ah. comme ni moom dafa ragal dee question yi muy <laughs> li ma xam nga lu leer la dama. non fi mu waxee ma ko wax. non non non waxuma loolu. Ah. waxuma loolu dama ni. li may wax ni maanaam sama tolluwaay mooy. jëf ma dee tey ak ma dee suba ak ma dee cent ans laa yemale cest à dama ci gisul différence. gisuma ko l'essentiel daal maa ngi jéem ci lu ma yaakaar ni lu baax la loolu man doy na ma sëkk je pense que ne loolu loolu loolu leer na suy waxuma ni damay damay comprendre naa mu yem tey la sa point bi de damaa bëgg daaneel fii rek ak Cheikh Omar Diagne bu fekkee gars yi amaatuñ ci benn laaj man benn bi moo ma desee moom mooy euh, ànd sàmm jikko yi kuréel googu nga xam ne yéen ñëpp ci ngeen bokk tour bi nga xamante ne nii rek dafa am signification bu rëy rëy njortu nañ ne tamit képp ku ci bokk jikko yi euh, sell na ba mel na mu war a mel moo tax ñuy xeex yenn valeur yi pour ñu delloo si waat ko wala pour ñu saxal ko fi tey jii nii nan la nit mën a nekkee ci loo xamante ne nii pour sàmm ay jikko la mu xëy génn ci jikko moo moo nekkatul ak jikko ya mu ñamu doon àndal wala jikko yi ñoo dem ba changé ci biir ànd sàmm jikko yi bon benn bu njëkk bi firiwul ni képp ku bokk ci ànd sàmm jikko yi sa jikko yëpp dafa impeccable c'est-à-dire doomu aadama noonu la waroon a demee ku dem bay sàmm leen war war ngaa sàlloo loolu du tout <laughs> d'accord du tout Euh, peut-être dana expliquer loolu. Ah. waaye firiwul ni képp kuy nekk ci ànd sàmm jikko yi un saint nga tu es irréprochable yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ñëpp te terewul booy jàng alxuraan ji da ngay gis ay réprimandes yu bari yoo xam ne borom bi daf ko ci def foo gisee maakaanil nabiin rek gis nga ni moom lay wax ni ko lii warul ab yonent warul la ko def. am déet kon dafa loo xam si ça se construit. nga koy gën di yokk bis bu ci nekk ngay gën di yokk tey jii am na foo toll ci station par rapport ak say jikko ak say valeur am na loo xam ne si xam nga ne yàlla la bind ndax wa nafsun wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla mi bind doomu aadama moo binde noonu bakkan inspiré ko lu baax waaye inspiré ko safaan aussi nit ki nag war di def effort en permanence ci loolu bala daje ak boromam loolu bu ko kenn occulté kon nit ku xamul rek mooy waxe noonu la war a demee nit ki di def effort ci boppam xam ni dëgg dëgg effort boobu mooy ndox jihaadu nafs effort boobu ci boppam la ko war a def ndax yàlla moo bind doomu adama nafs boobu ma la wax noonu ni ko euh, euh, inna nafsa amara bi suuy maa bind bakkan ba noppi waaye bind ko ci moo xam ni day xëcc doomu adama di ko yóbbu ci lu koy sànq loolu yow doonoo ci dara doonoo ma ci dara yàlla binde bakkan noonu te bakkan boobu ñun ñëpp ko am léegi nag dafa am effort yu ci war pour bakkan boobu bar laa bañ ci yóbbu ci sànq googu mu lay sànq kon firiwu ni nit ki dafa naan cëpp leen lay yéen rek lépp impact déedéet dañ koy jaatal ci aw yoon beneen bi ci des mun la sa bànneex yoon ci yàlla daawuda ab yonent la yemul ci doon yonent yàlla daf ko assigné mu doon xalifa yàlla ci kaw suuf mais lan la ko wax boo toppee sa bànneex da nga alku doo defal yàlla dara ci kaw suuf si kon ndekete ku topp non bokkul ak bakkan ba tey bànneex laa wax hawa sanq laa njëkk a wax bakkan li ma doon wax bakkan hmm. la nafs képp ko te passion kenn ku ko umpul ku ko ñàkk amul sa passion boobu la borom bi wax Daawuda ni ko boo ko toppee doo defal yàlla li mu bëgg ci kaw suuf da nga alku ndekete kon lu la yàlla tànn tànn ak loo jub jub jub boo toppee sa bànneex alku d'ailleurs afarayta man istaxda ilaahu hawaahu la alxuraan xanaa gisu leen ñi nga xam ne seen passion seen bànneex mooy seen yàlla moom lañ yàllal beneen équation bi nga xam ne nekkaat na ci biir doomu aadama yi tamit muy saytaane yàlla ko ko assigné yàll saytaane ñu fekk ko fi bu ñuy dee fi lañ koy bàyyi ba noppi muy jëfandikoo kàttanu yàlla te lenn dong la nekk ci liggéey mooy yàqal doomu aadama waxtu wu ne muy combattre ak yow ci nan lay fexe ba nga daanu. tey taata moom daa mel ah, ko ren bi <laughs> nañ ko. téye nañ ko bu baax loolu am na. waaye daa am ñoo xam ne fi mu ne dem nañoo dem ba est-ce que bokkuñu ci koortu seytaane googu sax alors seytaane moom loolu lañ ko assigné. inna seytaane lakum aduwwun fattaxiduuhu aduwwan seytaane seenum noonu la un ennemi déclaré jàppe leen ko am noonu ñetteel bi mooy àdduna dañoo nekk ci benn euh, illusion boo xam ne nit ñi rendre ñu ci compte borom bee ko wax wa ma la xayaatu dunya illa mataaxul xoro seen dund gi dëgg-dëgg ay nax la ay war la du dëgg te gis nga ba li ci nit ki rendre compte mooy malakal mawti ñëw di jël ruuwam wa jaat sakratul mawt bil haqq zalika ma kuntum minhu tuhid alxuraan a ko wax nee na ci instant boobu malakal mawti présenté wu di sa ruu war a taqalikoo ak sa jëmm ci ngay rendre compte ne yow ci caaxaan nga nekkoon ci ngay gisee dëgg-dëgg gi nga xam ne waroon nga koo découvrir nag ci bi ngay dund alors kon compte tenu de yii ma la wax ci résumé tënk donc nit ki su ci nekkee dafay xam ni kon ndekete moom dafa war di amélioré wu dafay war di perfectionné wu loolu ci la ñuy liggéey kon firiwul ni ku taxaw ni ànd sama jikko yi da nga impeccable da nga yow ab wàllu yu nga déedéet du tout beneen bi ci aussi jikko yooyu dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari tolluwaay benn bi ce sont des valeurs yoo xam ne si individuelles kenn ku ci nekk war ci góorgóorlu li ma doon wax léegi nii dugg foofu am na loo xam si c'est collectif par exemple bu ñu toogee am un agenda boo xam ni Nations Unies daf ko porté bëgg a imposer Sénégal parce que new na doole ci ni léegi lii da ngeen koy daganal seen réew mais kooku même booy naan sàngara sax war nga jug xeex ko ça n'a rien à avec ça hmm. parce que dafay menacer en fait euh, la communauté tout entière dafay menacer en fait l'avenir de ce pays là ça ne veut pas que ni kon nit ki il faut nga clean kenn amul benn reproche bu la war xoo rek pour man man man ko jafe bokk ak loolu yonent bi dafa jàngale ñaari yëf ci l'islam loo xam ne lu am solo la te koy bàyyi xel gis nga porter la bonne parole wàcce alxuraan warul tax rek nga ni il faut ma xam alxuraan yëpp ma di ko defal donte benn aaye la na nga ko jotali benn benn aaye principe bu am solo la boo xam ne boo defee transposition bi ci lii da ngay gis ni kon nit ki ak loo taq taq taq taq am loo xam ne lu ñaaw la soo gisee lu ñaaw it wërta tere nga ni lii lu ñaaw la soo ko mënee dindi nga dindi ko parce que bu dul loolu fi ñu yóbbu mooy finalement man kat am naa lu ñaaw lu may def mm-hmm. ah kii it mi ngi def lu ñaaw kon nañ bàyyi lu ñaaw day daal di law te man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastatix fa bi lisaanihi fa in lam yastatix fa bi qalbihi wa dalika ad'aful iman su ngeen gisee luy gàkkal wala lu ñaaw na ngeen ko dindi la yonent bi wax na ngeen ko dindi mais firiwul ne dafa ne rek képp ku baax rek na ko dindi déedéet na ngeen ko dindi su ngeen ko jéemee dindi sottiwul nag na ngeen ko dénoncé ci seen làmmiñ su sottiwul nag na ngeen ko naqarlu seen xol parce xam ni lii lu bon la ba ci man mii su ma doon def lu bon mais loolu dama ko war a naqarloo xam ni lii daf ma neexul peut-être ci dara mais lu bon la je pense que loolu foogoo foogoo ne méngoog méngoog li ngay woote tamit gënul li nga wax nii naam baax na dàquma ko mais euh, comme li olof c'est-à-dire méngóog li ngay woote est-ce que gënul ci combat. c'est-à-dire dafa am loo xam ni peut-être. Euh, dama xam may tere cigarette ba pare ŋànk ko naan leen bàyyi leen tux. déedéet ba tey waxuma loolu li ma wax nii su fekkee dégg nga ma bokkul ak li nga wax nii xam nga dama nii tey nit ki donte dafa doon jóg di naan sàngara la wax. mais mu gis ni am na agenda boo xam ne yëkkati nañ ko te ak ngóor jigéen lañ bëgg lawal ci réew mi te l'État du a accepté de dérouler cet agenda là depuis 2016. dama ne warteef la ci moom moomu di naan sàngara mu jóg xeex ko. loolu si non dafa bokkul ñaat non seulement degré yi bokkul ndax lee. mais professeur mën nañoo wax ne waxu mantikat la de. <laughs> xam xam nga déjà ñaari yëf daf ci benn bi mooy non seulement degré yi bokkul ndax leneen lu mu fi mën a doon bu ne la njaaloo euh, lu bon la. Mm. naan naan sàngara lu bon la. Mm. waaye góor jigéen mooy ak mbon moom ci boppam. yëpp boo leen boolee nga ni lii mooy ak mbon loolu mooy ci jigéen loolu lañ ko tuddee kon xam nga déjà niveau yooyu bokkuñu mm-hmm. mais beneen bi ci des si tamit euh, bokkul euh, li muy affecté nit kii naan sàngara nit amaana mën naa am sax buy naan xëñ na sàngaraam la jël dem ci néegam naan yàqalul kenn dara mm-hmm. bu noppee dem ci ay vaqué ci ay ay ay ay occupation par contre agenda bi bu ñu seetaanee mu law yow mën naa yàq sa digganteeg sa borom yàq sama digganteek sama borom kon xam nga yooyu kenn du ko tëkkale moo tax kon nit kii du nit mankat a ah am naa fu ma am gàkk-gàkk kon waruma déedéet dañ ko war a xeex ci biir xeex boobu moom ci lay dimbalee boppam dafa am benn njàngale bu am solo boo xam ni soo ma ko permettre ma ma ma ma ma nettali ko muy la am solo mm-hmm. dafa am kilifa goo xam ni dafa daan wax ni nit suñ ko gisee mu mel nu mu war a mel bu ñu ko sànni mm-hmm. bu ñu ko stigmatiser bu ñu ko joxoñ nee na soo ko gisee mu def lu mu dul def nee danga koy encouragé encouragé ko xam nga loolu xam naa doy daal mm. encouragé ko ni ko yow ku baax nga yow nangam nangam nangam nee na gis nga loolu soo ko waxee ak nit ni ko yàlla binde buy defete lu bon yow dana ko nëbb te ginnaaw yéen a sorewu leen buy def lu bon di la ko nëbb dem di mu day dem ba ci yàgg conscience am dana ko yedd ci mais pourquoi ngay daw di ko nëbb kii te nga ko nëbb yàlla mm-hmm. mën na caa jaare bàyyi lu bon loolu mm-hmm. jërëjëf euh, ma ñu ñëwaat ci euh, li waral coow li muy image yi nga xam ne moom mooy jënd Mouhamed laa ci bëgg a interpellé ak Aïcha parce que ñun ñu ci wàllu ñun ñu nekk ci wàllu mm-hmm. tasum xabaar ak internet bi ñu lu gars yi statut sax boo otul ñu copier ko daal di dugal ci mm-hmm. réseau yi donc nan nga jàngatee li nga xamante ne nii euh, dañ ko daan làq mu nekkoon sutura nekkoon kumpa ci ñu bëree bari mm-hmm. léegi ñu commencé koo fësal ci mbedd mi waaw dafa mel nii dafay laal li ñu tuddee la dignité humaine parce que ku nekk si kaso Euh, laaj na aussi war maay euh, kaso si wàllu boppam parce que bu ñu demee ba li nga xam te ni ñu koy permettre jàpp na lu banal la. Euh, buñ ko nangoo tey jii suba mun leen wane néegi ñu fa tëddee mu jur ab musiba boo xam ne nii parce que suñu kaso xam ne si bëree bëri si àq loo xam ne ni ko faa respecté mm. gis ni ni dafay am ñu muy parce que Cheikh Omar Diagne ñu bëri jàpp nañ ne ku ku doon gêné la waaye bu doon gêné yi tamit taxul ñuy violer ay loi ay ay droit en tant que même bu nekkee ñu ngi gisee image yi xam ne ne du ñu ko forcé mm-hmm. waaye daal ku nekk si kaso moom war ma bi si war donc parce que ñun bi ñuy euh, je me rappelle en quinze ou en 2016 euh, am na benn couverture ma doon def si benn kaso Euh, dañ doon bëre xam nga yenn saa dañuy def ay activités yoo pour féexal seen xol la. Mm-hmm. ay làmb moo fa amoon biir kaso bi. Mm-hmm. mais même boo koy couvrir sax da lay naan bul jël. Euh, euh, prisonniers ngam dañuy mm-hmm. dañuy dañuy bëri. même fii Liberté 6. événement bu fa amee des événements social œuvre sociale fay bëri. mais à chaque fois dañ lay wax xaar leen ci bunt bi. li dugal ngeen jël ko bu gars yi génnee ngeen taxaw ci bunt bi def déclaration. justement te xam nga loolu lu baax la loolu lu ma na lu baax la. mais su ko la ñuy sàmmee li nga xam te moom mooy la dignité du détenu waxatuma laa kon si genre condition yi nii même bu nekkee ne aussi tamit euh, lu baax la ñuy gis nii mais da fekk ne ay ëtt la yoo xam ne nii na mu meloon foofu lañ ko war a mel parce que kaso bu ñu demee ba sutura ba su daan am amatus rek léegi nekkatul kaso la leen lay tekki beneen mbir mooy li ñuy euh, si euh, ñu ngi ko doon wax semaine bee passé am na suñu benn confrère boo xam ne lii taxoon mu am jafe-jafe ak yoon moom mooy da doon filmer si couloir yi àggul mhm. bureau juge si couloir la doon filmer

ab lettre bu benn prisonnier bindoon rek bu ñu wax ne moom moo ko bindoon gis na ne lettre boobu bu mu génnee dafa indiwoon benn tollé général parce que prisonnier boobu damay bañ a tudd turam dafa doon décrire des situations exécrables yoo xam ne nii moom la euh, ñi nga ni ñoom leen jàpp nekkoon ci kaso bi loolu noonu danoon noonu dina tijjee enquête ak nangam parce que loolu arrangé wu leen

Euh, ëllëg image yi xamuñu fu mu mën a àgg. Hmm. xamuñu kañ lay jénnaat ci réseaux sociaux yi. dootu fa jénn donc loolu a toppal seen. kii bi mooy mooy la euh, nga baal ma lu amee hmm. doon wax tout à boo demee ci prison yi di def ay action sociale loo mënti def dañuy aaye caméra foofu noonu. ak téléphone sax hmm. koy bàyyi ci biti amoo droit dugg ak moom léegi ñiy dem yóbbuñu téléphone ñi ci biir soit dañ naan prisonnier moo filmé wala garde pénitentiaire ñoo filmé parce que boo leen dégloo kii di wax mi ngi wax Euh, bëgguma baakaar gisu nga ko mais mi ngi waxtaanu ñaan kii suma joo la naka noo sant yow la mën a ko mën la jaaj xam na kon ku bees la ci mbir mi voilà kon merci voilà kon ki lu yomb xam la bu nekkee ne bëgg nañ koo leeral absolument bu ñu ko leerul nag loolu jàpp naa ne après c'est un prisonnier wala muy benn benn hmm. agent wala garde pénitentiaire absolument Aïcha Aïcha Thiam yéen nga xam ne yéen dàq statut lu xew fu ngeen dem yóbbaale seen i dëj yi sax léegi gars yi dañuy dem ci dëj di mhm. filmer ce qui est incroyable léegi dañuy denc nit sax bon peut dañu mel ni dañu mel ni professeur ragaluñu dee peut être loolu la man dem ba semaine bi la semaine dernière rek gis naa vidéo bu ni mel ci TikTok bi benn kër ëtt bu yaatu xaw ma ndax nit yi war nañ ko gis ndax viraloon na ñu dem suuli ba ñëw jàppal bàyyil ay wujju ak ay doomu bàyyi nekk fa di xeex kenn ki taxaw fa la si PM di filmer ba ñu ñëw songoo di xeex mu nekk lu ñaaw yow dem nga nga denc sa euh, ki nga xamante ne moo dëdd seddagul fi nga xamante ne lañ ko tëddal ngeen ñëw di xeex bay filmer woon dinaa dinaa la yàq dinaa la weer du xew du dara loolu dëj la doo mais am na benn animatrice bu mag yàlla ko yàlla yërëm mais yokk yokk yërmande si moom bi mu gaañoo bu koy denc gis nañ ne même les images

bu fi daanu woon tey li ngay njëkk a def mooy jël sa téléphone filmé mm-hmm. accident am keroog choc am na ci Ouest Foire bi ni choc bu grave ñu wane ko ci internet mais li ngay gis yëpp mooy ku nekk taal na torche taal téléphone bi filmé à la place da nga woote sapeur pompier oto bi tonoon na ba dëpp wala ngeen jéem xool lan mm-hmm. koy dippee ku nekk lan lay njëkkante man maa am image bi 4 heures nga gis ku nekk non mais damay damay nettali damay nettali benn anecdote nga baal ma tàmm naa ko nettali benn jour dama toog benn waaye woo ma téléphone allo ça va waaw mu ne ma yow yaa nekk Sénégal ma ne ko waaw mm-hmm. mu oto mooy tàkk ci autoroute à péage bi. après am na sax yenn site yu ko jëndee mooy tàkk ci autoroute à péage bi. moo bëggoon xoolal ma jox la exclusivité bi ma filmé la ko envoyé sa numéro ma ne est doo ko dimbali mu fay oto bi ba pare après nga woowaat ma c'est-à-dire je pense que loolu moo gën te nee xaw ma caaro la dëkk xaw ma mais est-ce fay oto bi après nga woowaat ma donc image bi ma après gis naa ñeneen mm. mm. nga talaw woote ab ne ko da nga koy jox ay pare nag di waxaale image bi quoi après xaw ma ñaata nga may jox ma ne ko non fay oto bi ci ñoom ñooy naan ñooy joxe numéro ne képp ku tombé si nangam. fi mu ko nga yónnee ñu. moo tax moo tax léegi c' est extraordinaire te euh, comme li sëñ bi Mboub wax nekk na danger boo xamante ne euh, di nga gisale ku dugg ci intimité jàmm di a gis ko xam ne fenêtre am dafa ubbeeku muy sangu yow nga taxaw sa balcon à la place da dem ci kër gi ne ko sa fenêtre bi de ku fi taxaw dina la gis doo ko def de da ngay wut loo xamante ni filmer ko am naa sextape bu diw am naa mu diw dugg ci biir intimité am ci biir vie mu jekk saa gis boppam ci toile bi donc nekk na ñun daal man léegi xaw ma où va notre pays et par rapport à à à la vidéo bii nii da gis ci commentaire am na ñoo xamante ni peut-être mën na leen sa inciter à que ñu ne prison du dara banaliser ko j'ai vu des commentaires yoo xam ñu naan ah kon nekk prison li demal ay kuréel ñoo fa am li nekk méttiwul est ce que ñu ngi xool suñu suñu suñu suñu jeunes yi après lan la ñuy xalaat bu subaa ñu dem def jéyee pour ñoom lii kese la euh, xooluñu paquetage yi xamuñu leneen ñu dem dugg fii ni foog ni leen da ngay def kuréel toog di euh, nii à l'aise si cour surtout soble bi ñuy gis ci wér effectivement gis soble gis leneen gis waxtaan foog ne c'est ça la prison c'est pas ça la prison donc nekk na image yoo xamante ne lu muy yàq moo ëpp bu baax a baax a baax surtout comme ni nga ko waxee sànq yeneen nit yi ñuy wane fii ni leur famille man démb ba tey ni ma laa doon xalaat bu ñu gisee fii seen jëkkër wala seen frère wala seen neneen ban ban sentiment la ñuy am boo watee du ñu ndog du ñu lekk du ñu naan xam ne que ñi ñu ngi fii ñu tënk leen donc nekk na loo xamante ni war nañ jóg si suñu téléphone nekk na loo xamante ni mu ngi yàq bu baax a baax a baax société bi am de de plus en plus merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Babacar ma jox la nga tëj mais ku yaakaar ne dafa neex nii parce que da nga gis gars yi lal basal non dama leen dama leen di jox benn exemple bu ndaw mel ni sa néeg am matt gis bu bëccëgee boo génnee da ngay féex mais boo waree tëdd rek sa àdduna tukki ndax màtt yeeg fenn noonu la demee fii gaa yi ci ëtt bi lañ ne léegi heure tëdd bi kenn yàkkar bi fa daan daw dañoo comprendre ëtt bi day <laughs> <laughs> dañoo toll ci société boo xam ne man damay njëkkee benn ci mooy au niveau des lois et des institutions mhm. xam nga da mbir lu mu am am am am valeur ci nit ki ko yor bu ko joxul cër wala mu respecté ko ci biir mbedd mi bu koy jël di ko fowee ku nekk ku ne mën na ci jot di ko defee nu ko neex mhm. donc foofu la ñu toll tey ba man damay delluwaat xam ne est-ce que amuñu problème question de choix de personnalité mhm. mais également aussi personnes yi nga xam ne ñoom la ñuy teg au niveau de ces institutions wala nit yi nga xam ne ñoom la ñuy dugal tey ñu war a jël ay yenn lois yi di ko tëgg pour di ko jox nit ñi parce que nit ki tey su melul ni mu war a mel wala mu doxali ni mu war a doxali quel que lu mu mën a a a yor doomu bi ne ci biti di xool doxalinam di xool moom waxinam wala ni muy kooku day jàpp ne kii li mu nekk du tus wala du dara. Mm-hmm. te jàpp naa ne tey pour dire vrai foofu la ñu toll tey Sénégal amul benn institution boo xamante ni daanaka mënees na jàpp ne nit ñi mawul xëy tey wax ci lu ñakas wala mu wax ci lu ñaaw donc loolu day mettre remettre en question sànq dafa am exemple boo xamante ni bu patente la bu sëriñ bu joxe mooy lu ñëwal nit boo xamante ni jàpp nga ne kii amatul respect ci doomu aadama kii sàcc la. kii dafa nekk nit boo xam ne respecté wu li muy wax ak doomu aadama sax mu tënk loolu mais boole ci nag loo xamante ni lu mu tëggoon la ba noppeek ay nit mu jéggi ko dem jël ko di ko jox beneen doomu aadama wala mu daw ak moom rien pour rek jëm leen toroxal wala pour jëm leen nasaxal yow mi nga xamante ni yaa war a wane benn exemple ci doomu aadama yépp nga toog ci ab institution nga woo ko di ko recevoir ba ñu koy filmer di ko génne boole ci nag di ko joxum mbaqus pour di ko neexal ba pare nga ne capitaine Touré warul nag loolu day am beneen loo xamante moom lay symboliser aux yeux des autres après léegi beneen côté bi nag mooy pourquoi ces genre de choses là xam tey boo xoolee bu fekkente nii dem nañu ba toll ci société boo xam ne doomu aadama yi dañuy jéem a sax di réjouir maanaam di ànd ak mbégte di ànd ak kontante ci nit koo xamante ni mu ngi ci guddi gu bër setagul mm-hmm. wala mu nekk ci jafe wala mu nekk ci jaaxle kon jàpp naa ne jot na ku ci nekk xoolaat sa doxalin mm-hmm. ku nekk xoolaat lan nga war a mën a def yow ba jéem a sa société bi te cër bu ci nekk ne ku ne am na ko mm-hmm. parce que tey kii Cheikh Oumar Diagne mi même bu fekkente ne l'intention on ne sait pas mais véritablement ci ñi ko def tey fekkante ni bëgg nañ ko xam wala tey ñu bëgg ci def lu leer man mm-hmm. jàpp naa ne warul mën a nekk loo xam ne day jafale mais lu mënti doon ñi ko jëf am na ñoo xamante ni profité nañ ci pour wane ñoom seen contenté moom ci nitam tey wala tey ci tolluwaayam mu di loo xamante ni daanaka lu ñu war a mën ruslu la ci nit ki nga xamante ni jël nga intention pour def ko tey mais loolu yëpp mu ngi delluwaat nag ci benn côté ñi war a ab mën a benn taxawaay bi pour société Sénégal war a mën a baax ñoom ñu njëkk a jalgati pour ñoom nañ xoolaat seen bopp ñi war a defeer pour nit ñi mën exactement ci yoon la ñuy jaar ñoo ñu dañoo jalgati nañ xoolaat bopp ñi war a voté ay loi pour nit ñi xam ne loi bi am na lu mën a njëriñ doomu aadama ñu ngi jalgati yoon ñoom tam nañ xoolaat seen bopp yooyu yëpp jàpp naa bu ñu ci doxee rek dina bari loo xamante ni mën na ko indi ci wàllum doxalin mais mën a soppiwaat société boobu mooy ba ñu xamoon mooy ba ñu daan gis su ko defee société bi mhm. mën a dox ci anam yoo xamante ni war jërëjëf euh, Babacar Kébé di la jaajëfal bu baax a baax euh, ci ponk bu am solo boobu tey euh, rinkum bi am na solo bu baax a baax comme d'habitude ni ñu ko tàmmee def ah gaydel numéro 2 ah gaydel gaydel moo fi ñëwoon. waaw gaydel waaw waaw gaydel mooy gaydel numéro 2 ok Babacar kon yaay gaydel numéro 2 donc jaajëfal ko bu baax a baax damay ànd ak soxna Mati jaaj ak mboolem internet yi ñu dem xool wàllu yaram wér yaram bi Euh, li am na daal lu ne moom la ñuy jàngal fili la jeexee. <laughs> médecine daal am na lu ma ci comprendre. lépp loo dégg lax comprimé wala garab boo dégg mu sant lax xamal ne day dawal bii. loolu moom maa ko xam ci médecine. fili ah, lax daal xam naa ne foo ko kii Ahmed kii bi mu.